dañu seeti actualité Sindiély Wade dañ koo tuumaal ay taqal ci affaire 37 milliards ci fes nan ba loolu da koo dégg dagg paas ñëw ñu seeti ko. Sindiély Sindiély Sindiély kenn du ko tiiñal Sindiély ngi ñëw Sindiély kenn du ma tiiñal Sindiély ngi ñëw oui. lay walay dëgg la d'accord d'accord d'accord ne lu passé passé na lu jeex jeex na mais lu passé passé na sama papa moo fi nekkoon président cooli jeex na waaye topp ci rajo yi di mbamba si lamin yu xëy rek naan si njili milliard si njili man laalu ma jegu ma ñamu ma safu ma bàyyi leen ma ngir yàlla man sama papa bii laa tel sama papa bële laa tel ma sumi sama lunette yi sas ngeen ne ma xujj xàmme xam ne la làqatuma sama papa laa tel ndax sama papa ma nga tëdd di xool information yi ñuy waxtaan ak moom xelam di nekk Sénégal guddi ak bëccëg sama yaay nag moom te tamit guddi ak bëccëg mu ngi xalaat Sénégal moo ma yebel ne ma Sindiély demal nga lijjanti sa problème bu la kenn tiiñal kan moo may tiiñal man Aïda laa tudd Aïda Wade sama turandoo ñaari bii la nekkoon kenn du ma tiiñal journaliste yi bind affaire bi nag bëgg yàq sama dex dinañ xam ne gune ñaari tali la suma papa nag mu ma wax ne ma bi nga amee deux ans nga dem vacances ñaari tali te ñaari tali fula ak fayda moo tax ñu gagné coupe bi kon loolu moo nekk ci man man laalu ma jiiñu ma ñamu ma dama yoxoon fes man mu jeex ma teg fa yépp dem ana mu ana xaalis bi kan moo ko jël sama mag ti ngeen ko ba mu yàqu ñu rawale ko ana xaalis bi kan moo ko gis Karim mii laal na Karim laalul ana mu tey ko gis xaalis bi kon dégg la man nag man nag man nag du ma na fi ngoom Keita bi ngeen di kalli kalli man kenn du ma kalli man man buñ ma réglé sama wax bu rafet buñ ma réglé wax bu ñaaw dégg ngeen parce que ba kenn jàmm la bëgg dama bëgg suma tëddee nelaw suma côté yaay waaye si njëli jël na si njëli ci la bokk ñaari at ñetti at ngeen tee seen lamiñ yu gudd yi bëgg ma fatt bu leen ma kenn xel journaliste yi lay waxal bëgg lu neex seen journal warul tax nga bind loo xam ne laajoo ki nga koy bindeel loo gis dafa am éthique ak déontologie balaa may bind naa la ki ñu bindal ak ki tax ñu bind waaye bind rek si ñu li milliard comme ça yàq sama vacances yi ma doon def ci sama côté yaay man jëkkër lay lijjanti lijjantuma ay milliards parce que dama toll ci sëy dama war a sëyi man du ma ñi nga xam ne dañu toll si sey di man bu ma kenn rey heure bi waral ma fekk ma buub ma ma eh, uuf bébé Ablaye parce que bébé Ablaye heure bi waral na fekk muy jooy bébé Karim di jooy man lool laa tal balaa may ménopause bu ma kenn <laughs> sonal yéen may may dégg bu ma kenn fàttuwaay ñëpp a ngi ëmb di dem mu ne ma am jëkkër di ëmb te ma toll ci am jëkkër war a ëmb eh, ngeen bëgg ma fàtt guddi ba jeex te ngili milliard eh man bu ci Kouthia sax moo gën kon ba tey si waxuma la waaw man suma ma xamoon sax ni Kouthia kaf yi kaf rek la ma dëggal ko kon xam naa kon maa ngi neef ndax Kouthia du ma xam xam naa kon maa ngeen ma kon xam naa ni maa ngi neef ndax ku ceeku xool kollem googu xam du ma si bàyyi kon na ngeen ma bàyyi tout te ngeen lijjanti seen affaire u milliard te bàyyi ma tout tranquille sama papa maag la sama yaay maag la taluñu leneen lu dul fexe mu ànd ak dal te jéem a boole njabootu Ablaye Wade bi yëpp ñu ànd nekk benn loolu la ñu war waaye seen jëli na jëlul loolu lan sauf pati journaliste yi ko bind xam naa leen ñi ko wax xam naa leen ñi ko lavi revue de presse seen la tax yooyu mel ne laalo mbépp xam naa leen waaye sauf ba bëgg a dee bu leen ma fàtt man maa ngi bëgg a dee su ma ku wax loolu yow kon ndokkale maa ngi leen di xamal ñaar du ma seen morom du ma seen taluma tey taluma maa ngi bëgg waa ngeen ne amiin bile yi amiin amiin amiin pourtant mën na nekk de amiin maa ngi bàyyi ba kenn ti tubaab ñu xam ne ñaari tëri laa maa ngi fala juddoo fala cosaane du ma si la soog a tudd ci lakk